Alassane Boy Fass Boy président des associations des euh, de retour. Bon, nous étions euh, dans les pirogues pour aller en Espagne pour recherche de travail. Mais néanmoins, les problèmes euh, et les dangers étaient tellement néfastes. De ce fait, nous devons retourner au Sénégal pour travailler. Parce que c'est mieux qu'aller en Espagne en Europe chercher du travail ou dans des conditions difficiles. C'est pourquoi nous sommes retournés et travaillé au Sénégal. Est-ce que le voyage était très dur, très dur, tellement dur. Il y de monde, non. En face boy, il n'y a pas beaucoup de morts. Mais la voyage était tellement, tellement, tellement difficile, difficile. Combien de jours 8 jours. Vous avez amené des ravitaillements à manger mais comme le trajet, il y a le vent, quand le, trajet est trop long. Donc, si vous programmez euh, euh, euh l'alimentation de cinq jours et vous passez 7 jours, c'était fini. fini. On essaie de, de diminuer ce qu'on mange.

ok kon nga gaal gi ngeen dem fële Espagne. Euh, nous waaw bi ñuy jël gaal gi dem Espagne boobu amatuñu yaakaar Sénégal parce que da ngay dem di géej doo am dara ngay bay tool doo am dara nga gis say morom nekk Europe. di ñëw di faj ay soxla kon amul leen lu def pour dem Europe loolu rek mun dugaloon si gaal gi pour faj soxla yi waaw loolu rek mun dugaloon si gaal gi. Hmm? ñaata nga fayoon. man sama départ maa ngi fayoon quatre cent mille parce que xaw ma woon départ départ am doon ñëw rek di fay ay quatre cent mille ay cinq cent mille Fass boobu ñu ngi jógee Fass boobu waaw mais à la fin ñu ne ay capitaine nañu parce que ñun ay pêcheurs nañu à la fin dañu mu gën yóbbu gaal ñu ñu fay xaalis ñu ngi fay xaalis pain bu naagee. voyage bi metti na lool voyage bi métti na parce que doo nelaw guddi noo dama bëccëg lekk gi du doy naan gi du doy doo am sa fóot da ngay bokkut da ngay bokkut si gaal gi parce que gaal gu nga xam si ay yëpp ay cent cent trente personnes cent cinquante personnes ah ñu ne ñu teg looy amul sangu amul leneen. da ngay dem ba gaa gi day xeeñ xol am ñoo xam si nga di ànd ak ñoom ñoom xamuñu dara ci géej dañuy wàccu ñii di puub si gaal gi du kon day day métti trop. su démb doon tey doon tey moom duñ dem duñ dem si gaal gi ndax jëlewuñ si benn ndam suñu alal yàqu na ñëwaat nañ départ à zéro kon li ñuy digal ndaw yëpp rek mooy ñu toog Sénégal liggéey ci géej géej si tool yi mais nag ñu ñaan aussi état mu ñëw indil lu ay financement mën téye ndaw yi. parce que aussi nit boo ko nee bul def nangam tam da ngay fexe tey gis dara. ñaata fan nga def naa si gaal gi cinq jours mooy premier voyage. dem nga ba egg. dem naa ba àgg am fa quarante cinq jours bu ñu àggee. dañu simi ah, di añ dañuy rang nekk ay milliers de personnes parfois da ngay rang midi ba ay quatre heures soog a añ te dañ la yàggal tuuti plat nga lekk tuuti nekk si centre yi saa nga sangu saa doo quarante cinq jours mhm. police di la man ma fu ne ñu yóbbu fa saa tey ñu yóbbu la il euh, bi nga am fay fan yóbbu la feneen. pour def pour pour di la déplacer di la làq lay làq xam nga. loolu ko quoi. waaw après boo amee 45 jours xam nga boo egsee rek dañ lay biiral kayitu judd ne la yow fii ak 45 jours. waa réew soxlawul dañ lay dugal si biir réew mi mais bu la fi sa euh, euh, réew soxla dañ lay dugal si biir dañ lay dugal ci biir biir réew mi nga mën liggéey. mës nga gis ku ci dee. yow eh, non mosuma mhm. noo mujjee foofu yow non bi ñu amee 45 jours si lañ dégg ni état Sénégal nee nañ delloo si ndaw yi mm. léegi nag si lañ ñu rapatrié bi ñu rapatrié dañ ñu dañ ñu manoote dugg si avion yi wàccee ñu Dakar Bango jox ñu sandis nekk suñu deret am na ñoo xam 10 000 francs et bu leen fa seen place noonu la nga ñëwaat dépasse à zéro.